léegi yow waxal balaa may wax. non saa yi bu ko. tey dama yeewu jël sept. waaw ne dama koy jóg téeméer cinq yi. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga tey la lan tey la lan booy ci mois waa waaw tey la lan ci mois bi. tey la xam man le seize. la ah. sama boy bi di tëj. Mm-hmm. te war nañ takk. le seize juillet. seize bii di ñëw. waaw la bi di tëj. sama doom bi xool fii dafa infecté. billaahi dama ko yóbboon SOS beneen moo infecté ñu yóbbu ko essence da waa ji buddi ndey affaire bi deful rajo deful dara buddi bëñ bi mais beneen bi moo jël nag léegi xam fii fee bokkul ak fii. du benn ñoom centre la. waaw waaw. waaw ñaata moo newoon fee. un cinq. un cinq. waaw muy ñaata. muy quatre cinq. quatre cinq mu des ñaata. mu des cinq cent. cinq cent. waaw dimbala ma ci. ma dimbala la ci la ci waaw. balaa balaa la seize. ah xaaral ma woo ko. allo. waa ji. kan si. bi. waaw non waxuma kooku de. Ah. sama jabar ak sama. yow da bàyyi bu bàyyiwuma ko. lii sa poche la jëm yow. dë dëggal day lii ñu bàyyi ndey kala en attendant. fekk ginnaaw suba wala ginnaaw waati suba.